sa maam Seydi rek dañuy laal. dëgg lay maxtaan wër na yàlla wallaay lay maxtaan nag ci Khoudia Mbaye moom woote léegi. Mm-hmm. sunu soppe bu baax boobu. dëgg la ak Ngala Mbaye moom. Mm-hmm. ak Mbaye Seck laay. wallaay ndeysaan ak Gazu. Gazo yal na ko yàlla trop war na yàlla danoo kontaan. alhamdulilah yal na yàlla kontaan. jërëjëf maam Seydi waay. jërëjëf lay maxta yàlla fayal bàyyi laay. amiin lay maxta. maa ngi coupé. voilà jërë ngeen jëf kon maa ngi arrêté fii euh, maa ngi arrêté fii euh, téléphone yi ba ci kanam incha allah daal ci dellusiwaat ak oustaz xam naa ñu bëri ñu ci ligne bi. wala ku ma jël rek dinaa jël hors antenne nga wax ma rek li ngay wax fekkee di nga mën dugaat incha allah il fait une heure trente deux minutes. Mm-hmm. incha allah deux heures mooy le quart dinaa ubbiwaat antenne bi ngeen may ma dix minutes rek maa ngi léegi oustaz bismillah tafadal Yacine fa tabaarakallaahu seyna ibrahim wax dëgg yàlla seyna isa tolluwaayam ci kambereen moo tol noonu wa jaalani mubaarakan aynama kuntu yàlla def ma may ko ànd ak barke fu ma mën a nekk mu jël kambereen dal di ko tudde kem Medina kambereen nekk dëkku leer nekk dëkku barke yann yàlla tas ñu ci barke eh, seyna أي أحاديث من ويحكم بشريعة الإسلام من سينا عيسى دفاي أتوا شريعة الإسلام واي أقولي نك بودي مكي تيري بنيو النبوة والأنبياء نويران تسينا عيسى نن لي جت شريعة الإسلام لاي ونيو جيكتك مويلي يلا وقتي القرآن وإذا علمتك الكتاب والحكمة من يلا مالا خمل القرآن xamal la itam sunna yonent bi wa tawrata wal injil xamal la li ci téere Muusa di tawra xamal la li ci sa téere di injil kon loola dafay tettale ni seen Isa jëkka mu dajeek yonent bi ci mujj jamono daje nag moom daje yu bari ndax boo demee ci téere boobu mu ngi indi ni Anas ibnu Malik dafa wax ni dafa masa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam حديث بني لتدمنا بينما نحن مع رسول الله إذ رأينا بردا ويدا فقلنا ما هذا البرد الذي رأينا واليد قال صلى الله عليه وسلم فقد رأيتموه قلنا نعم قال ذلك عيسى بن مريم سلم علي أنا mu دنيو dañu أندك a ànd ak yonent bi أم ci سدلو rek am am ben loxo bu talalu te saxul ci ben jëmm andangalaw li ñëw dal di jox yonent bi loxo ne na ñun saaba yi andon ak yonent bi ñu lacc loxo bi ñëw nu yok yow te saxul ci ben jëmm ban loxo la mu len sayna Isa ibn maryam la ndax yàlla moma bolek mom amna it benen hadith bo xamne Anas nettali na ko ne ne mas nañu andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kuntu maa rasulillahi atufu hawla xawla alkaaba إذا رأيته صافح شيئا لا نراه نانا بني وركا بجري دي دف تواف يكي جيس يوننتي بي أم كومي صافون تل واي جيس يو جيس واي بنيو كولا جي لنجي صافون تل لن لا منسينا عيسى بن مريم لا يالا دفا دوغل مو واتي ون بي دف تواف كيكا بجي مخار بمو سطل توافم كمي سورة دف سما تواف كون لولا دي تتل ركني أه، سينا عيسى بن مريم yàlla yagne len bolé boole abu yàlla nettali ci téré bo nubu wal anbiya mune ne kon nak loolu itam fa tabarakallah mu nek lu am solo lo xamni sayna Isa ñëpp xaron ak wàcc Abu Hurayra dafa bari lu mu daan nettali hadith ba mu jigi saaba yi di am sikk sax ci bari lu muy nettali hadith waye dafa wax ben wax muni ni la in nazala Isa bnu Maryama qabla an amuuta la uhaddisannahu an rasulillah fa yusaddiquni moom abu hurayra mu ne yéen a ngi dingat barik xadis yi may nettali jële ko ci yonent bi waaye comme sayna isa mi war a wàcc moo ñu koy gën a jiyee bu dee ne yàlla dogal na ma fekkee wàcc sayna isa danaa wax ci yonent bi xadis boo xam ne dana ko dëggal du ko weddi kon defe naa ni wàcc sayna isa ñépp a doon xaar am nag benn ci baro école yooyu ñu wax ni Sina Isa giseem ak yonent bi bu wàcci du doon lu jombe ndax defe naa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif wax na ne raaytu jëddi sayidal wujud yaqazatan la manaman digganteem ak yonent bi ñaati siècle moo ci dox neuf siècle dox na ci mu ne yàlla wane la na sama maam mi sangu mbindeef yi te du ci nelaw du ci géyante waaye ci yëg la ma yàlla wane lekk moom mu daldi ma jox la may jox te am na leneen lu gën a doy war al imaamu lii dafa daldi wax ne lawxu jibtu an bi tarfata aynin ma adattu nafsi min al muslimin mu ne su ma toogee diggante xef ak xeppi ma geestu isma yonent bi ci sama boor danaa yëg ci sama bopp wàññeeku goo xam ni booletuma sama bopp ci jullit yi te moom digganteem ak yonent bi di seekal dox na ci waaye kiir wane ne na mu daan giseeg yonent bi rek kon si na isa ndigim ñooñu yàlla terale ak wilaaya ñoo am jigéen yonent ba mën ci gisee noonu rawatina si na isa mi nga xamante ne yonent la ci ulul azmi la bokk kon nag boo laa ubbi antenne yi itam eh, dafa am benn résumé rek bu ñuy def. waaw ñu boobu. waa résumé bi. lañuy tettaloo ci ne sina isa mi yàlla dogal mu wàcc si ci kuréelu mahdiyu feeñ ci Cambérène lañuy tettaloo ci ne sina isa moomu la dañuy jël xadis ba yonent bi waxoon ni wa yamuutu isa wa ne bi jiwaari sina isa kat bu génne àddina danañu ko sul mu dendeek man defe naa ne seen ñaari rawdu seen ñaari xabru ñu ngi seenanti wa nuzuluhu bis sanawaati lati rufiat biha Sayna Isa mi yalla dogal ñu seddu ko itam ci 33 ans la ñew utu ses papam ah te itam bi mu outo papam itam ci 1909 tok na fi ba 1949 te yonent bi waxon ne wa yamkusu fiikum 40 sana Sayna Isa bu wacce dana tok ci sen bir ñen fukki at yu mat kon nak 1909 ba 1949 lu am solo la gazuma ñew <laughs> ndax mu nek itam lo xamni euh bañu démé ba Seyna Issa tok nek ci sunu lamagne xale fanwéri at ak ñett wayé mu am benn tampon boo xam ne daf ciy bind la ibn imam allah ñu ne xale bi kat limu wax ëpp na nak wayé am benn tampon ci 1920 ñu daldi di ko ko yónnee ca mag benn traitant bu ñu wax bàll ci lui sen daldi di ko ko indil ñu bind ca Isa ruuxillah ibnu imaamillah imaami kulli imaam imaamul xaramay kon nag la ñu doon diŋet moon am na leneen lu ëpp la ñu doon diŋet waaye ba mu toogee itam lu gën a yéeme itam ca 1911 foofu lay jeexale jëkk ma ñëw ci xutba bi dafa am benn shérif bu toppoon këru diine yi di laaj ay hidaaya waaye Seydina Isa ci yiwam ak mbaaxam bi shérif Abdullahi al Baydani ñëwee ci 1911 mu dal di ko ganale ñaari fan ca ñetteelu fan ba mu jox ko juróom benn téeméer ca jamono mun ko borom daraja ju tol na yow may sët ci yonent bi amul looy tegoon teg man lu dul juróom benn téeméer sëy naa Isaa ne kii teg ngay laaj addiye moo ma jur loola nag xaw a rëy ci moom gasu bu looy bay rek ma dal di ko chara rek ñu jëlal la jox antenne bi <laughs> waaye ba mu duggee itam sëy naa Isaa mm. dal di ko jox ndigal mu dugg ci xabru bi waye ba mu duggee ca xabru ba daldi ziyaar waaye nelaw jëlk Seydina Limaamu daldi ko feñu ci ñaari dar ya ba mu dee naar ak ba mu ñëwee ci mujj jamono nek ku ñu waye ba mu génne mu daldi daanu àll daldi sadd juróom-ñaari bayit ci juróom-ñaari bayit yoy la ñuy jeexale jëkk ñu ñëw ci khutba bi mu زائرا يا إمام الله نرجو من الله عفوا وغفرانا ne yow mi yàlla tànn ngi njiit ñëwoon naa doon la ziyaar si waaye di ji jiitu ci man maa ngi am yaakaar ci yàlla mu jégal ma ko mu nekk man qaala fiika shay'an mal'uunan ba'idan min rahmatillahi wa xuzlaana wala yow sang bi képp koo xam ni jëmale na ci yow kaddu gu muy diingate sa mbir jaam yàlla ngoog boo xam ne gecceel nañu ko mënatul jëfal yàlla lu mu ko nangul منك فدينك فوق الأديان كلها في يومنا هذا من عجم وعربان منك يو سانغ بي دين جينغ انديل جامون في يومنا هذا ci suñu jamono bi kawé na bépp diiné boo xam ne moo xam ajam moo ko fi indi wala arab moo ko fi indi منك فمن يرمي بترك غدا يلقى من ربه جنة وريحانة ku yàlla baaxe ba mu tënku ci yoon wi nga xàll bàyyi fi taalibe ngoog jullite ngoog boo xam ne ëllëg dana dajeeg yàlla mu berne la ko aljana xet yu neex ya fay belli mun ka fa ummatuka ala alxalqi fazat nuuruhum yatalahlau shiiban wa sibyana fa ummatuka kuréel bi nga fi bàyyi fa ko mbooloo mi nga fi bàyyi faazat texe nañu ci biir mbindeefu yàlla yi waaye leer ga ñu ràngo itam mun ka yàlla dogal na muy léer ci ndaw ñi ak ci mag ñi ñi amee karaw gu ñuul ak karaw gu weex mun ka ni'mal xalifatu ibnuka isa annahu baadaka li diini qad sana mun ka ni'ma yiw na ni'ma baax na ni'ma tabe na alxalifatu ibnuka isa kay sa doom di sa xalifa sayna isa annahu baadaka li diini qad sana ndax diine ji nga rëdd bàyyi fi gannaawam ñoŋal na ko waaye yàqu ko moom sayna isa mun ka ammarahu llahu umran tawila fi ragadil aish wa bana bihi diina mu ne kon nag la ma koy ñaanal yal na yàlla ñoon di fanam te dal di ko bàyyi ci dund naataange te yàlla taxawal diine ji ci loo xam ne defe naa loolu yàlla def na ko sëñ Ibrahima. jërëjëf jërëjëf euh, professeur euh, oustaz Baytir Lay mhm. ñu ngi lay gërëm baax ñu déglu ba ci kanam. fa tabarakallah waaw mu leen mbokk yi kon dafa mel ni damay ubbiwaat antenne bi ñu dellu si euh, ci laaj yi ak contribution yi salaamaaleykum mbokk mi nootu tudd ak fay wootee. waaleykum salaam man Ousseynou Laye Mbaye. Ousseynou Laye Mbaye. Daayira Géejawaay. ah président Daayira Géejawaay. waaw waaw kii woote na waaye nag booba yaa ngi ci biir thème maa ngi lay bàyyi oustaz bisimilah. waaw oustaz. waaw Ousseynou. sànq ñu ngi lay ziyaara. alhamdulilah yal na yàlla nangu jërëjëf laay waay Maxtaar yal na nga fi yàgg te wér amin amin amin Aliou Sow yal na fi yàgg te wér yal nañu ko yàlla boole wan wax dëgg yàlla euh, di ñaan yàlla mbir mi jëm kanam amin amin ndax euh, Ousseynou boo mënee wàññi sa rajo bi waaw ndax lu ñëpp bëgg mm-hmm. yàlla daf koy yombal mm-hmm. waaye nag oustaz euh, maa ngi xam wax dëgg yàlla Seydina Limaam mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di la wax ne bëgg bi ma bëgg wax alhamdulilah. waaye nag euh, lépp rek. Mhm. maam Seydou jar na ko. wallaahi wallaahi. ndax man man sama jëmbat xam naa ne man ku bëgg maam Seydou laa. wallaahi wallaahi. ba tax na lépp lu may yëngu lu dul diine. Mhm. bokkul ci sama dund. alhamdulilah di leen ñaanal yàlla ngeen yàgg ci wér. yéen ñëpp surtout Ibrahima Jong. dëgg la jërëjëf wax dëgg li muy def ci diine bi. ñëpp gis nañ ko. ah di wax sama waa daayira nag ñu gën a góorgóorlu te déglu li fanaani ko déglu ba asamaan set te it di wax ñëpp rek ñu préparé suba suñu conférence bi. képp ku yàlla amal jot rek nga mën a teewe ko fa. Mhm. nga teewe fa incha allah. waaw ah, jërëjëf Ousseynou. ndax nag kon naa ngi leen di bàyyi ndax ñu bëgg ñu bëgg euh, jokkoo ak yéen bëri na. jërëjëf Ousseynou jërëjëf laay. voilà kooku mooy Ousseynou Mbaye woote ca fële ca Guédiawaye di président daayira Guédiawaye ñu ngi lay jaajëfal di la fàttali oustaz kii di Serigne Abou. Mhm. ca Yoff. Mhm. woote na léegi. mi ngi lay nuyu bu baax ak ki ñuy wax Ndiémé ca Nord Foire salaamaaleykum mbokk mi nootu da koy woote. asalaamaaleykum. Adja Ndeye Fatou Laye HLM. bisimilah oustaz. ah soxna si la soxna si waaw. Adja oustaz bay téere googu. Laye Makhtar Laye Makhtar soxna si Laye. yalla yàlla nangu ziyaara Laye Makhtar. macha allah waxtaan am na solo. tabarakallah min lay dege alhamdulillah yal na yàlla yokk xam-xam bi. amiin Laye Makhtar. may la fan yu gudd ak wér ak wér lekkal ka man ko. amiin amiin yal nañu ko yàlla boole. amiin yal nañu ko yàlla boole yow ak sama di nga yëpp. teg nañ ci seen bët. amiin amiin alhamdulilah yal na la yàlla lafal cat. amiin lay waxtaan. jaay xol bi dafa xees dafa fees ba fi mu nekk xaw ma sax lu may wax. fa tabaarakallah. yal na yàlla yokk xam-xam bi. amiin macha allah sëñ Gagu kontaan nañ. Ibrahima. <laughs> yal na yàlla yokk xam-xam bi. amiin yaa rabbal aalamiin. waa kay jërëjëf laay da koy jël si wala yaa ngi tokkaar. <laughs> waaw maa ngi xaar. <laughs> waa kay jërëjëf. ñu waa kay ki mooy Adja Ndeye Fatou Laye di woote ba HLM di soxna Oustaz Baytir di gërëm bu baax ci woote bi di la ci ñaanal yal na yàlla defal jàmm. amiin salaamaaleykum mbokk bi noo tudd ak fooy wootee. la kan ta wàññi sa rajo. Euh, Bada. wala Soda waat parce que boo wàññiwoon rajo bi duma ma dégg li ngay wax. waaw wàññi nga ko. waaw maa ngi koy wàññi. Soda fooy wootee. waaw kay bisimilah oustaz Bayti rek lay dégg. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Soda. maa ngi leen di ziar bu baax. yal na yàlla nangu ziyaara bi. dëgg fa yàlla émission bi mën naa ne tey laa ci doog a woote. Mhm, mhm. waaye daal maam Seydi moom dama koo bëgg bëgg bëgg ba di ngeen koo ah. tudd rek. bëgg nga ko jërë bëgg. wallaahi. wallaahi ko man daal damaa yëngatu fi mu ne nii. Mhm. waaw dégg naa nag suñu président daayira mu woote léegi. ma kontaan ci trop nag. dëgg la. waaw maa ngi tamit di ci dëgg sama mag yi tukki yëpp. yal na yàlla nangu tey naa li maam rek lañ jox. amiin amiin amiin. ñu ngi leen di ziar bu baax nag sama ah. amin amin amin jërëjëf kooku mooy Adja Sodo laay woote ci Guédiawaye bisimilah oustaz Baytir waaw xam naa sëñ Ibrahim mhm. dafa am njàngale yu kawe bisimilah. salaamaaleykum mbokk mi noo tudd ak fay wootee. aleykum salaam. laay Matar. laay laay. laay yow la kan. Anta Kebe. Anta Kebe xanaa da nga doon daw. ah. da nga doon daw xanaa. dama doon daw la xelam maa ngi sama kaw lal di la woo. ah dama foog da ngay sport dafa metti kat. <laughs> laay laay oustaz. laay laay maxtaar soxna laay laay laay maxtaar. laay maxtaar laay laay maxtaar laay. jàmm rek laay maxtaar laay waxtaan bi am na solo. fa tabaarakallah. man nag damay laaj. bismillah. li may laaj xam nga lan la. Seydina Isa mhm. alayhi salaam. Mhm. dikkaatam ci jamono. waaw yan kéemtaan la def. Mhm. parce que xëy na ñun xam nañ ko. waaye am na ñu nekk ci tuus bi. loolu dafay day baax ñu leeralal leen ko. dëgg la dëgg la waaw. lan yan kéemtaan la mhm. mhm. waaw loolu moom euh, daanaka kéemtaan yi mu def bari na ndax nag ba mu nekkee nga xam ci kër yi Baye Mamour waaw ñu ni daana jekki romb benn kaang mhm. boo xam ne boroom dafa dee ba faatu waaye dafay jël kaanam nga dal di ko yëg ci dal di ko laaj tuuram ak kaña faatu Kang ma dal di ko wax ni man diwu sangam la be sangam wer sangam la yalla dogal ma fatu won waye ci woyefam nak mu dal di ko tek na ma sumu turondo yi de daana ko def mu ne sama turandoo ya. daana ko def ndax daana waxloo niiw yi di len dekil kon nak lolu dama ko jele ci sama turondo waye mom la ci bopam waye ci woyefam ñu ne daana jekki itam mhm. dafa dan di jël kala gi rek yow ci ndigili gor gi ne ko waw mbañum rus nga na nga jël kala gi tek ci bop bi mun ka téeñ bo yan bu ñëwagul ni mutul yàkkamtee téeñin waaye ba yàlla dogalee papam faatu ñu yonni ndaw li mhm. bi ndaw li la àgg kaalawu na ndax téeñal yan ba ñu ne kaalawu na ba jiite sëñ Mamour ndax dafa daan bay tegginal ko sëñ Mamour daawul nangu mhm. jiite sëñ Mamour waaye ñu ne fajar googu papam génne àddina la taxaw fa ko sëñ Mamour daan jiite dal di kaalawu gu weex gàggu ñuul gi te ca ndigg la rek la ko daan teg dëgg la kon nag mu xam ne teeñ ba ñëw na. ñëw na te ndaw la ko war koon a tàggi ak la. kon ñu ne bi ndaw li laata ñëw tàgge na sëñ Mamour papam ne ko sama papa yenneeku na yenu na yan gi. wallaahi kon loolu itam ay kéemtaan yu bari la yoo xam ne dundam yépp kéemtaan. dëgg la mani. Ah. Mhm. mani. Mhm. maj paas la sama borom kër moom nag. طالبه خادمه خادمه مين بسم الله اه كوكو امنا صلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لاي مختار لاي مختار لاي لا يند فاي وا يلنا يلا نانغو نيغي رافيت ايميشن بي رك تبارك الله يلنا يلا رافي رافيت نوك يلا نين موم اي طالب مريد لا نيو واي تاي بو نيكولوت اي مريد bir na ni laayeen la ñuy doon. wallaahi wallaahi wallaahi. ndax vraiment. Mhm. man laayeen dama leen bëgg trop ci sama xol. yal na yàlla bëggal. particulièrement nag ma am ci jabar nag sax. alhamdulilah yal na yàlla barkeelal la maa ngi leen di ñaan rek. Mhm. ngeen di ñuy ñaanal. incha allah. sama euh, xarit boobu tamit nag di Khoudia Mbaye. maa ngi koy sant bu baax ndax déglu naa ko. fa tabaarakallah. waaw maa ngi leen di ñaanal yàlla rek seen émission bi moom. yàlla na gën a jëm kanam. amiin amiin amiin ndax man du ma ko rate benn yoon. fa tabaarakallah maa ngi nii toog sama digg laal di ko déglu. alhamdulilah maa ngi leen di sant nag bu baax di leen gërëm. jërëjëf ku ñàkk te ñaan nga yàlla na yàlla barkeel sa ànd ak sa soxna. amiin yaa rabbi. xaadimuna si xaadimu rasul. la mu seede ci seen sa dafa am solo ci téeram boobu laysal birru mu ne wi isa wajjahahu llahu ilayna wa xatam nee sayna Isa mi jamonoy xaar yàlla andil nañu ko ñun xetu muhammad mu ñëw motali si mbirum diine musaddiqan lil kulli wal amru atam ba mu ñewé itam la sharia andi yep mom sayna Isa deegal nako mbirum diite mate ci lo xam mune iza isa ata ruuxul ilahi ba'dahu ka al mahdi yaxfu rushdahu nene ruhul ilah sayna Isa bu ñewé gannaaw maat yu nekk di dom ju Mahdi yi jur ngir wara xeyntu jup gi nga xamantene mom la Mahdi yu rëddoon sëñ touba ci mbaaxam nag mu ni waajahtukum bil haqqi za nasiha mu ne yéen xeet wi la birena len dëggug yàlla man radda haqqan ba bil fadiha dëggug yàlla nak du ngay lu won ka gannaaw mu ne sànni nga sa bopp ci weeru te sëñ Tuba li mu def ci séede fa tabaarakalla séede gënu ko koy ah, wallaay jërëjëf fa tabaarakallah maa nii eh, uh-huh. ah, daal. lii daal nga bëgg. waaw. voilà jërëjëf dañ ci dellu si kooku mooy Soxna Anta Kébé ak borom këram mbott fi. ñu ngi lu bu baax seen woote bi. di wax oustaz ba tey xam naa naa bàyyiwaat yeneen cinq minutes auditeurs yi dugg salaamaaleykum mbokk mi nootu da fay woote. salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw kooku dafa mel ni Serigne Abou la de. waaw waaw moom la de. ok walaay xamee naa ba di Serigne Abou ca Yoff woote na. waaw sëñ Abou ñu ngi lay ziyaara. alasaan ak seen i. lay Maxtaar. kontaan naa ci émission bi. yal na yàlla kontaan. Eh, dénk naa la nag. yàlla ak bay lay. dénk nañu ko. sunu borom bi subhaanahu wa taala mhm. yokk sa fan yokk sa xam-xam. amiin amiin sàmmal la sàmm sa njaboot. amiin sàmm say ñoñ. amiin amiin amiin. te li ñu nag déglu bu baax wax ji ngay wax ci Seydina Issa Rouhou Lahi mhm. ndax moom Seydi kat. Mhm. soo bëggee gën a mën a xam Seydina Imaam Mahdi. da ngay jaar ci moom mooy caabi. mooy bunt bi de. kon. du ma téye euh, maanaam waxukaay lu yàgg. damay daal di bàyyi ndax ñi war a jokkoo jokkoo. Mhm. te nga continuer ci buntu boobu ngay ubbi. alhamdulilah rabbil alamin. maa ngi lay sant bu baax Lay Maxtaar. Lay Maxtaar Lay la sant fii Lay Maxtaar Lay. jërëjëf Serigne Abo di woote ci yow oustaz waaw bisimilah Fadal. waaw kon euh, sëñ Ibrahim dañuy dugg ci xutbi bi rek. waaw ñu ndax la mu làmb ci ay njàngale dafa kawe. waaw xam naa ni balaa noo dugg ci kii bi. Eh, naa bàyyiwaat deux minutes ñu dem ma teg bi. bisimilah ñu déglu ko ndaxte su ma xasee bu Euh, vingt minutes laay amaat. dégg nga waaw auditeurs yaa ngi nii di woote salaamaaleykum mbokk mi. allo waaw ah, maaleykum. kooku noo tudd ah, la Soxna ah, jërëjëf moom it woote na sànq waaye ne boobu yaa ngi ci thème bi bisimilah oustaz Bayte mi lay dégg. Soxna Ndiémé. salaamaaleykum salaam waaw Soxna Ndiémé. Hmm? waaw. dafa andi waale. bët bi. peru bët bi ndax moom bi soo doon bi mu nekkee xale. bi mu nekkee liir. bi mu nekkee liir ba muy gën a àddina. Eh, léegi moom la indaale fii si biir. ah ci ñaareel bi wàccu waaye. voilà mm-hmm. léegi. Mm-hmm. Eh, bi eh, kii gant bi. Mm-hmm. yi muy sol laa bëggoon a xam. nga leeral ma si tuuti gant yi muy sol parce que instant bi mu nekk woon kii bi boo fekkoon na ñu yéegal ko daal. waaw waaw bon boobu du woon kii bi réel bi. waaw du woon nit ki daal si jëmmam en fait. yéegaloon nañ ko instant yooyu te bii nag moom mi mu nekkoon liir la woon ndax bi ñëw na moom mu ñëwaale fii léegi nag gants yi dama bëggoon nga leeral ma si tuuti lan moo war a nekk si gants yi fii bi mu ñëwee si di sol waaw waaw xam nga sina isa ku fonkoon set la ku fonkoon hygiène la comme dafa daan di jëflanteeg ñu nekk daawu ko sol toujours bu jëflanteeg ay taalibeem waaye bu dan génn comme day joxante loxo ku ne dafa daan jékki sol ay gants lolo kon sina isa mu ngi ñuy ijen hygiène ah. kon lal ijen hygiène rek tax mo dan ko di def waye du lu mu dan di def toujours ah. sina isa ku fonkon set la ku fonkon walu set la ku ko dan di digle la ndax fonkom set rek taxone euh dawul may diggante Cambérène nak yof ñuy yar mala yo xamne ne dañu leen di boyel ci mbedd yi ne ne ku manul yor mala dal yar ke ci sa bir kër ba du tilimal mbedd mayu la ngay yar mala ci sa kër mo xam ganar la mo xam yenen rabi àll yi la surtout ganar xam ne setul mom mosu ko may diggante Cambérène ak yof ci bi muy dund kon lolo daf ñuy jangal ne ku fonkon set la ku fonkon hygiene la waaw jërëjëf soxna Ndiémé. jërëjëf Oustaz Mbaye Sy. jërëjëf affaire bi macha allah. baarakallah. ma passe la ah soxna maget. Bismillah. wa alaykum salam wa salaam maget lay mahtar lay Maxtaar laay. bay Modou. yalla yalla ziar. ziyara ay maxtaar ñu ngi kontaan si émission ah yal na yàlla kontaan di ñaanal borom rajo bi di ñaanal sëriñ bi Ibrahim di sant ñëpp di la ñaanal yàlla yal na yàlla yokk xam-xam amin amin la maxtaar yokk man gi amin amin ak wér gi amin amin kenn mënu la fay laaj fa tabarakallah yal na yàlla boole ñu lay maxtaar lépp lu ñu xam te yàlla ak yow alhamdulilah ñu si sant yàlla yal na yàlla ba lay maxtaar faar ñu ko di fees na del baarikallah yal na yàlla kontaan yal na yàlla kontaan lay maxtaar mhm. na yàlla yàggal la amin amin lay maxtaar amin lay maxtaar sallallahu alayhi amin lay maxtaar jërëjëf lay maxtaar ñu ñu njaboot gi yëpp waay lay maxtaar jërëjëf euh, soxna Ndiémé ak euh, Maguette di woote ca Nord Foire ñuy wax nag mbokki auditeurs yi une minute moo ci des ci pour ngeen mën a woote laaj wala ngeen euh, contribuer ci thème bi nga xam ne Jésus démb ak tey ji bu paré dañuy continuer dugg ci khutba bi ya, lan kay ndar képpé ndaxte inshallah 56 minutes rek moom déssé si dina ñu déglu li ba kérok euh, ñaari auditeurs yi may mujjé jël wala benn bi góor ak jigéen magan ndawaat xaleele jaama nga noon oustaz xam nga kii di way kan la xam nga baat bi mo neex la yow la fa tabar ibrahim wa ñu déglu ko ba ci kanam amna solo amna solo <laughs> ñu jël auditeur bi salaamaaleykum mbokk mi salaamaaleykum. sëñ bi noo tudd ak fay wootee. man la Baye Dame Laye. waaw sëñ Dame. waaw Cheikh bi. waaw waaw oustaz waa ji rajo boobu. sëñ bi ñu ngi bëgg de. waaw fa tabarakallah conseil spécial. alhamdulilah fa tabarakallah. sëñ bi bëgg nañu. yal na yàlla bëgg. yàlla bëgg na rasulillah bëgg na jàmm. amiin amiin yàlla yàlla bëgg. fa tabarakallahu njàng mi kawale na. alhamdulilah. ñu ngi sant yàlla ci Ibrahima. dëgg la jaajëf oustaz. ci teranga bi mu indi xeet wi tey. yow it naa la dalal de. ma ne teraanga bi muy di xeet wi tey kenn mootu ko jëf feesu dëgg la te oustaz jàng na tey ci Seydina Isa loo xam ne nit mënu ko dindi ci jamono wallaahi seede bu biir la ci yàlla indi ci jamono ci borom xam-xam yi war a wisaare yu wax wisaare Seydina bi maamu mu ngi koy taxaw coxaay bu rafet ci liggéey liggéey bu am solo lii mu def tey wane na ko ngontam mii bu ko yàlla fee umma bi xaj na ci yàlla nañu ko wërsëgoo mu wërsëguñu amiin amiin yal na yàlla dolli xam-xam barkeel defam amiin amiin julli yëpp ñu ngi lay déggee di la ñaan yàlla la ngay sumb ci lislaam bi yàlla nga ko motal sago amiin amiin tey béykat yàlla boo jéem la télé amiin amiin yàlla boole yàlla na yàlla jiitu la ci nit ñi ba li ngeen na mu taxaw ci mu yomb la amiin barke Baye ci at ma kontaan nañu bég nañu. Mhm. yal na yàlla fay la. amiin amiin yem. ñu ngi bu baax nag ci dalal. jërëjëf oustaz ñu bëgg ay yoon yoon yoo xamante ni. yii moom kay fi nekk nii c'est fini moom matal nekk matal ci yoon wi. waxtaan ci ñaari thèmes yi di ñëw incha allah. incha allah dinañu waxtaan ci pèlerinage à la Mecque ci yeneen fànn ak waxdatul muslimin kenn ak jullit ñi mhm. incha allah ak yeneen yeneen bu fàtte nag yow dinaa la dalal sëñ Dame yàlla yàlla motali <laughs> kontaan nañu ko waa kay lay waxtaan la sëñ Dame jazakallah yàlla njaboot gi yëpp yàlla na yàlla barkeel ajaa ndey ngi nii ndey daara ji waaw waaw sa ajaa ndey Fatou